tey ñun li ñu wax Serigne Mboup tey du bëggoon a noppalu day publier rek le contrat de quelle de vie xam nga xam nga xam nga ñun amul ñàkk manque de visibilité mhm. mais ku nekk sa niveau ngay liggéey mhm. nous nous sommes une grande coalition mhm. une coalition historique une coalition qui a duré pendant pratiquement dix ans fukki at c' la première fois au Sénégal président Macky Sall yore ko nag de maître maître di ko coacher ñi mu àndal déggal ko xam li bëgg ci Sénégal xam fu ñu jëm donc cette vision moo tax ñu ñu ne mënuñ tëkkale suñu bopp ak ay candidats indépendants candidat bi ngay wax Serigne Mboup c' est un de l' opposition c' est un candidat indépendant Serigne Mboup il est de l' non mais moom biñ ko laajee def nañu moom ci démembrement état la bokk. non non non non cest euh, il faut dire les choses telles qu'elles mm-hmm. gis nga il faut être de la dedans ou dehors. Mm-hmm. on ne peut pas avoir de liste. Mm-hmm. la seule liste bi nga xam ne mooy liste président de la République. liste bi nga xam ne moom moo jël en charge les préoccupations de Benno Bokk Yaakaar. qui est la coalition qui encadre le président de la République. depuis 2012 la liste de Benno Bokk Yaakaar dirigée par Mohamed Ndiaye Rahma. et le dans le département notre frère Pape Demba Bitèye toutes les autres listes toutes les autres listes c'est des listes de l'opposition y compris la liste que vous venez de parler la liste de Serigne Mboup donc Serigne Mboup c'est la c'est il incarne l'opposition aujourd'hui dans la commune dans ces élections là il incarne l'opposition pure et dure parce que il est en train de s'opposer à tous les choix du président de République mais toutes les politiques du président de la il a des choix politiques à faire et les sur les maires de communes. Uh-huh. Les maires qu'il a choisis et qu'il a, qu'il a voulu à un moment donné, qu'il dirige les communes. Ces, ces maires-là, uh-huh. maires yooyu tey kii la ñuy sukkandiku ñun pour def les politiques publiques yi nga xam ne moom lañ moom lañ soxla. Uh-huh. mais liste boo xam ne contre na loolu. mais liste yooyu liste boobu noonu nekk fii Kaolack xamal ni du liste président liste opposition la. waaw mais tamit ci ci biir loolu il faut que tamit ñu am benn leeral parce que jot nañu am jotaay ak ki nga xamante moo di le président Serigne Boub mais il nous a clairement dit que ne tey jii bés bu jotoon mairie bi état du Sénégal mooy doon partenaire am. kon kon jàpp ma ne non c'est-à-dire que loolu. Mhm. ku xamul lan mooy xam mooy lan mooy collectivité territoriale yaay wax loolu. Mhm. les collectivités locales c'est des institutions décentralisées. Mhm. c'est des démembrements de l'État. c'est des démembrements de l'État. c'est-à-dire que ni doo ko yoree. xamal ni li nga yor moomoo ko état ko moom. état moo lay jox état la ci alalam dem état la ci impôt di dem état la ci budget di dem. li ci des ay taxes la ak ay impôt yooyu noonu fi ñu koy jëlee ak dotation bi mais état koy joxe. et la loi sur la décentralisation tamit wax na leen ni carrément ni les collectivités c' est des institutions décentralisées. kon kay doone man du ma fi danaa liggéey ak du liggéeyal état kan lay liggéeyal. parce que état la yor. xamul ni mairie état ko moom xamu ko. Mhm. les mairies c' est des institutions démembrement de l' état c' est des institutions décentralisées. Mhm. il faut loolu bu comprendre mu comprendre ko moom d' abord. Mhm. ñaareel ba moom mooy dañuy politique politique Macky daa am parti moom dafa am mouvement am. ñun ñu am suñu ay mouvement suñu mouvement choisir ànd ak président daal ànd ak Modou Ndiaye Rakhma moom mouvement mouvement am choisir demal boppam. jël ay yenn opposition ñu nekkoon ci yoonu yow xaw ma yeewu askan beeg yooyu. ànd ak moom. ñun ñu ànd ak suñu liste. donc liste boobu tey doon wax liste président Macky Sall mais tu racontes des histoires foofu laay teel. moom mooy il faut benn leeral am foofu parce que. leer na nañ ñi. non ki mu investir ci li nga xamante ne mooy conseil départemental bi moom il est de la il est de APR. mani képp koo xam ni da ngaa opposé mhm. bi nga xam ne mooy list liste Benno Bokk Yaakaar. de fait te de fait dans l' loolu moom nekkul sax lu ñu non non loolu amul lu ñu lu ñu ci yàgg. Mhm, mhm. benn liste moo fi nekk. ñi ci des ay candidats la. des candidats indépendants yoo xam ni dañoo féete seen ak créé seen mouvement nekk ay candidats indépendants dem. mais nangul la ngeen ko mais nañ nangu tamit ni nekkuñ Benno Bokk Yaakaar nekkuñ liste président Macky Sall. d' accord foofu laay waxe accord ñaareel ba moom mooy nii. Mhm. li may indi nag moom mooy nii wax ne ñun dañoo yore dañoo yore parti politique. Mhm. parti politique yooyu yore coalition. Mhm. coalition yooyu noonu ay doomu aadama ñoo ko seq ay responsable politique. mën nañ plus de trente responsables politiques au niveau de Kaolack. responsable politique yooyu noonu tey ñoo ŋànk base bi yore appareil politique yi si seen biir parti ba pare yore ko seen mouvement ñooñu noonu tey. Mhm. doo ci boolee ñi nga xam ni tey ay partenaires ngees lañ. Mhm. ñoo xam ne ñoo gëm ni kii kat moom mooy la bon candidat. Mhm. boole ko ak société civile bi nga xam ne xëy na dañoo xool ba xam ni kii kat mooy njëriñu askan bi mooy njëriñu Kaolack ëllëg si bi duñ jëlee mairie bi. dana état danañ mën a liggéey ak moom président ñëpp ñoo dajaloo tey ànd ak Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar même du newul génn woon ci ay télévision mhm. xam nga yéen da ngeen defe ne campagne bi ay oto la mhm. ak ay affiche non non non nit ñi dañoo toog ci seen base yi mhm. dañ koo li base yooyu dañ koo liggéey ay ati ati ati at man Moussa Fall kese mi wax a yow depuis lu man ñaar fukki at maa ngi liggéey sans base kon sëriñ bu mu ñëw barki Demba Ndiaye mun na am ay milliards mun na am ay journaliste am jëlee leen Dakar ak fépp ñëw def communication mun na ko nekk mais nag pour mu dab mu pour mu dab ma. mun nga ma ëpp alal mais doo ma dab ci nit ñi parce que nit ñi danañ ma jàpp démb tey doo ko dikk. mun jaay rax ma pendant fukki at yàlla lim liggéey fukki at yàlla du kalu ko waaye xaaree ba keneen mhm. ko gaje ci mouvement mouvement mun jaay rax ma kese kese kese laa wax. Mhm. xam nga yëf yi dafa bëri ay caaxaan ci nekk. Mhm. te naxaate yi dafa bëri. te ensuite nit ñi dañuy def ay amalgame mais politique dafa dafay laaj dafa nag teew daxul lu ñu ñu xam la mooy politique politique lañ koy jàng tamit. analyse bi tamit dañ koy analyser. xam ku ci lu nekk lu xew lii xewee lan moo ko indi. mais candidat indépendant li mën moom mooy sukkandiku parce que ki nga xam ni day xëy. di uti militant. mais est-ce que mën na bokk ki nga xam ni dafa yore parti militant di cotiser di bokk di ànd ak moom pendant quinze ans vingt ans ñu nekk di liggéey ñoom ñaar bokkul ki nga xam ne dafa xëy di ut ko ko votel moom day xëy di ut ko ko votel ñun suñu militant lañ yor ba pare Awa Gueye militant am la yor. Dame Fissata Diop militant am la yor. Pape ma Bitèye militant la yor Mun Ndiaye Rahma ay militant ay militant la yor Ousmane Noël ay militant la yor. Manourili mii ci Kassaville ay militant la yor. mën nga koo jàpp mën nga koo jàpp mën nga koo jàpp fii ba guddi Baba Ndiaye ay militant la yor. tous ces responsables là dañoo yore seen base politique base politique boobu nekkul dañoo xëy tey rek dikk nañu candidat lañ pour ñu ànd ak nit ñi ànd ak ñoom. bokkul nag un candidat indépendant boo xam ni dafay ut ay moyen ut ay otoom ñëw jéem a attaquer ñi sur le plan médiatique. pour mun a engager des voix. Mhm. loolu nangu dañ ko tamit c'est possible. d'accord mais dañ ko def nañ ko def dans le fair play. Mhm. nañ ko def ci yar ak teggin. Mhm. nañ ko def ci un débat civilisé. nañ ko def ci un débat civilisé. xaste yi ak saaga yi jaru ko. attaques yi ak wax ñu ñaaw ji jaru ko. parce que ñun ñëpp ñoo bokk Kaolack. ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi. moo tax foofu laay owaat leader politique yi ak kilifa yi. nañ indiwaat seen xel. débat politique bi mën nañu ko poser muy un débat démocratique te bàyyi nit ñi bañ ni saa boo ñu la laajee dara rek wala wax rek nga sa xol jóg. ñun dañu nekk fi internet dañuy saaga dañuy attaqué dañuy wax lu nekk mais dañ koy muñ parce que nag dañuy jàpp dañuy politique. ndax politique ak loolu ñoo ànd. d'accord ndax duñ la dénkee dara. nga nekk gestionnaire d'un bien de l'État. parfois ñu ne la rendre le compte. tey ñun li ñu wax sëriñ bu tey. du bëggoon a noppalu. day publier rek le de Kelle de di ko publier tey Sénégal yëpp ka loxo waay yëpp xam ni ah sëriñ boobu kan nekk moomul kër Reville mm-hmm. état Sénégal moo ko moom da ko ko lay lay woon da ko ko joxoon da ko ko da ko ko da ko ko joxoon mm-hmm. mu ne langam laa ci liggéey dangam laa ci liggéey état bi moo ko joxoon ñu ngi ne tàccu ñu ngi tàccu setal man man pour man un démocrate noonu la war a doxee mm-hmm. mais gars dañuy dañuy wane jikkoy démocrate mais pare di agir comme un despote te loolu man vraiment rafetluwuma ko kam dara nekku ci nga ne ah man kat lii laa ci def lii laa ci def lii laa ci def yàqul dara mm-hmm. parce que ñun ñëpp ñun ay Kaolackois lañ kii Sénégal koo fi duut baaraam mun na laa duut baaraam mm-hmm. Sénégal mu tëddee noonu koo fi yore livre bu mag a mag a téye ko mi ngi la yoreel sa ab bibliothèque boo xam ne mi ngi ko teg këram mm-hmm. donc li ci am solo moom mooy ñu bàyyi détails yëpp te waxtaan sur le plan politique joxante suñu xalaat génne suñu xalaat te fexe ba ñu xam ni ku nekk am nga programme. D'accord. ñun nous avons le de l'histoire de depuis 1963 amuñu masuñu am programme aussi consensuel. et puis et bien recensé. dans tous les secteurs de la santé de l'éducation dégg jëm ci wàllu culture bonne gouvernance le principe de la réduction des comptes parce que dañ ko inscrire ñun ci sunu principe de travail les fora yi ngay dégg ñu koy wax ci biir programme bi moom mooy ni pareetuñ pour toog ci bureau bi di liggéey dañoo bëgg pour rendre compte population yi à travers trimestriellement ñu wàcce ci benn quartier def fa benn fora ñëpp dikk ñu waxtaan seet na la ñu e- ñu fexee ba xam jafe-jafe yi nekk ci quartier boobu feet solution yi dañ ko indee ba pare maire toog responsable yi toog ñu toog waxtaanee ko ci biir quartier ba te loolu c'est un programme extrêmement important loolu la ñu def ci école yi mm-hmm. ndax bëgg nañ Kaolack liñ ko ñu tuddee ko la ville la plus propre du Sénégal te loolu moo nekk suñ première défi défi mm-hmm. faire en sorte que Kaolack la première ville mm-hmm. propre la plus propre du ñu dem ci wàllu sport wàllu culture. eggal eggal egg de santé moom nee nañ ku nekk xam na ni dañ koy wax chaque jour ñi leer ko nee nañ ñun programme suñu programme continuité la. ndax Mariama Sarr la maire sortant dafa liggéey liggéey bu am solo. ci wàllu assainissement. liggéey ko ci wàllu infrastructure yi nga xam ne mooy ay tali yi mu mooy ay yoon yi voies yi. voirie yi liggéey ko ci wàllu lampadaire yi. liggéey ko ci wàllu pakaseen ci wàllu promoville. projet yooyu nga xam ne état da koo jàppale financé ko état ci la ñuy sukkandiku ñun pour continuer liggéey bi nga xam ne moom la ñu woon. moo tax. Mhm. gisuñ benn benn jafe-jafe. Mhm. en tout cas fi ñu jëm fii ak le 23 dimanche prochain yaakaar naa ni du ñu peggee fañ jëm. Mhm. nit ñi dañ xam ni vraiment Angleterre moom nekkul pompiteer